nga n'est-ce pas dama leen di wax boo xoolee damay wax man dagguma kenn mais di may wax ay dem fan ban ñaata dem am pourquoi donc dem bi nga bëgg ñaata dem am léegi léegi léegi dama leen laaj ñaata dem am waaw léegi soo leen laajee ñu tontu la nga bëgg ma agir mënu ma agir dama leen di bàyyi ngeen ngeen échange donc xam nga des fois da ngay ne on ne peut pas rester là di wax te loolu mun naa ko des fois oui des fois non mais léegi dama bëgg ne signifie pas forcément c'est moi qui régule laisse-moi réguler comme je le sens voilà ah mais il faut ma gis ma dëgg soxna la présidente pas forcément. fu ma dëgg sama tànk ba àddina gis ma. d'accord soxna laa il a compris. léegi nañ ko dégg moom nag mu ne allez faire le mauvais garçon. yow. yow pare ngeen. yow c'est nul li ngeen. yow. parce que. jigéen du la dégg du sëy. am na loo xam ne am na loo xam ne dans la. billaahi barka borom kii li mu énuméré dafa yomb. jigéen du ko déggal du sëy li bi wax nee na góor. nga jox ko mu lekk. nga mhm. jox ko lu neex si lal bi. nga mhm. jox ko xaw ma lan ak lan. taxul mu toog day fekk rek mu nekk góor boo xam ne dafa bëgg a toog. léegi góor buy dem une minute rapidement. oui lan lay wax si kooku li mu jox exemple dem ban lay wax. dem rek la wax dem la wax. dem yow yaa ko fa qualifié moom dem la wax moom. dem la wax. donc l' émission n' a pas de sens. dem la wax dem. dem ndax lan daf ne ku bëgg a dem fan dem ndax lan ngir yàlla dem wuti soxna parce que kooku dafa bëgg a expliquer ne li ah. xam nga lan la yow yaa koy expliquer loolu mag na kii mag la dem bi muy wax xam nga mooy lan mooy dem def si tu te calmes non non non parce que parce que seen question yi ñu posé moo amul sens eh, ce qu'il pose ay mais yéen ngeen foog gel bi bu toogee fii di énumérer yu baax la yëpp bu toogee bu toogee énumérer yu baax yëpp góor nga dem loolu dem bu baax la ah. kooku dafa dem pour dem si copain mi ah. jouer ji wala la dem bu bon lay wax mooy xam nga dem ban ah non. même ma ne ma ne d'accord dama ne man li ma gëm xam mooy lan. Hmm. bu fekkee sa kër. foo dugg rek comme li ngeen wax comme li ngeen wax. sa jabar jox na nga lekk. sa jabar jox na la nga naan. sa jabar mi ngi lay toppatoo fu ne. waaw jël bi na dem. ñu bëgg ne loolu dem bu baax la. mais réfléchissez waay. xam nga ban dem bu moom moo am. lan lay doon. mu dem takki keneen. waaw dem takk keneen. waaw mais dem dem la dem takk keneen. ak ban dem dem takk keneen. ak ban ak boobu ban façon dem la. ban façon dem parce que boo déggee dama lay s'il vous plaît vous deux s'il vous plaît. dama lay on a compris ce que vous dire bàyyi leen ma ah, waxtaan mooy. Ah, je vais te marier nullité bi ñuy wax mooy xamalan parce que gisuma gisuma lu baax. loo xam ne am na loo xam ne sama aawa motalu ko moo tax ma dem léegi jigéen. joxal naa léegi jigéen bu motal toog. s'il vous plaît s'il vous plaît. jigéen bu motal toog robe. jigéen bu matal néeg. waaw jigéen bu matal massage. jigéen bu matal lépp. massage la. yow nga ne. yow yaa wax massage fii Sénégal. maa ne jigéen bu matal massage. baax na arrêtez s'il vous plaît. Ah. léegi léegi jigéen bu matal loolu yëpp. bul fi yow góor bi yow góor bi foo jëm. bul fi indi histoire. yow góor bi foo jëm léegi yow góor boobu. góor boobu dama lay bëgg a laaj benn question. dem bi ndaw si wax xam nga ban dem la. Hmm. mooy du dem boo xam ne day neex ku jigéen kii dofu leen. kii euh, walaay yàlla ce que j'ai compris par rapport à la dame. mooy jigéen yu bëri dañuy nekk dalal la waxtaan. jigéen yu bëri dañuy nekk di sonn ci seen borom kër yi. Hmm. di togg lu neex di yàq lu neex euh, fu astuce amee ñu jëndi ko. fut lu am lu baax lu ne suñ ko gisee pour seen boroom kër vaisselle yeeg ñoom ñëpp ñu jënd andi teg pour ñoom loolu moo mën a téye seen borom kër moom ci moom li mu xalaat mu ne góor bu bëgg a toog rek moom mooy toog léegi góor bu bëgg toog boobu mooy ban façon góor un homme qui veut rester avec sa femme waa léegi fan que ça soit mariage que ça soit ngeen di génn xam nga lan la nag mais rester comment xam nga lan la nag Safia on ay on ay ay mag la ñu. waaw c'est quoi le problème léegi yow li ngay werante la comment liggéey bi énuméré yëpp taxul téye góor si mariage. d'accord c'est ton point de vue on l'accepte. mais c'est ça qui existe. voilà non non dama la ne xamul tax ma ne la loolu ñoom ñu may ne. ndax mhm. dem boobu mun na doon dem bu positif. Mhm. ma ne leen liggéey bi expliqué xam nga mooy lan. que mhm. góor mun nga ko defal lépp du tax mu génn uti leneen. d'accord. loolu la gel bi wax ñu may ne. loolu téléphone loolu d'accord ay papa bàyyi jàmbur loolu la fi gel boobu wax moo tax ma ne. Mhm. bu fekkee tu es un homme responsable. waaw mhm. nga bëgg am loolu yëpp sa jabar. Mhm. mun nga fa bañ a toog mais si tu es un homme responsable xam ne sëy c'est pas yow ak sa jabar rek. il faut calculer les enfants il faut calculer l'avenir des enfants il faut calculer. li nga xam ne yàgg sa jabar fan ngeen di mujjee ji. mais qu'appelles-tu un homme responsable. un homme responsable mooy góor bi nga xam ne bu ñu la joxalee lii benn jabar rek nga war a am. waaw benn jabar rek waaw. waaw loolu le problème c'est pas le problème le a am benn mooy. am na lu xale bi motalu. waaw ci moo tax ku góor ki di dem. waaw d'accord leen nag nit mun na motal loolu yëpp mhm. Mm-hmm. nekk responsable. te tey day dem. am na lu ko manqué de. am na lu ko manqué de. am na lu ko manqué de. waaye layam layam bi. coalition moo tax tu as du mal à t'exprimer da ngay layam layam. damaa gis ne <laughs> gars yi dañuy créé seen benn coalition ànd xeex ba. waaw wala ma ne. wala quelque chose de ce genre. mooy pose des questions yoo xam ne amul benn sens. xam nga lan ban dem la gerte di wax mais ay dem na jóg dem na. xam nga gis-gis moom pion yi day changé affaire yi di changé à chaque fois mais Safia sànq da nga wax ba. Mm-hmm. ba ne luy daaneel kii du daaneel kii wala nit ñi bokkuñu astuce yu leen di daaneel damay joxe benn pour ñuy jàngale jonge ay ñi nga xam ne dañuy jàngale astuce dama leen jox benn astuce universelle astuce mm-hmm. jonge jigéen ñi laay jox astuce jonge universel bi nga xam ne boobu boobu am na école buy jàngale jonge man maa leen di jox ah, man may góor man may góor ubbil sa nopp bu baax te ma wax la lu li li nga xam ne école lu diggante góor ak di ma sëy non non jonge laa wax jonge astuce léegi astuce boobu école boobu dina doon sa yaay mun na doon sa papa mun na doon sa lépp ñu lay jàngal boo demee nii ngay sëy mun na doon sa bàjjan affaire yooyu astuce universelle bi nag euh. sànq da nga wax ba ne sër sër Safia danga wax sër dafa am benn sër sëru bopp